pour tënk ko ci wolof li ñu fi indi tey mooy waxtaan affaire inondation affaire assainissement assainissement ñaari pàcc la benn bi mooy ndoxu ñuy wax ndoxu fosse yi benn bi ndoxu taw la eh, bu ñu jëlee ndoxu fosse yi eh, mooy li ñuy wax eaux usées Sénégal dafa bokk ci dëkk yu ñu gën a ràññee dafa bokk ci dëkk yu ñu gën ràññee parce que bu ñu jëlee téeméeri nit bu nekk eh, juróom benn fukk ak juróom-ñaar yi am nañu assainissement te bu ñu jëlee Afrique sowu jant ñu jël téeméer bu nekk ñeent fukk ak juróom-ñaar ñoo am donc am na ñaar fukki poñ mais loolu lu ko waral mooy investissement yu important yi nga xamee ni son excellence président Macky Sall def na ko ak guvernement bi Sénégal nekk ràññekaay tamit am na leen lu koy wane. mooy boo jëlee dëkk yu mel ni Côte d'Ivoire nga dëkk dëkk yu mel ni euh, euh, Burkina Faso nga jël dëkk yu mel ni RDC nga jël dëkk yu mel ni Cameroun Sénégal moo leen di tegtal moo leen di tegtal ci benn kuréel Afrique bu ñuy wax association africaine de l'eau pour wan leen liggéey bi ni muy demee loolu mooy assainissement eau usée bi nga xamee ne Sénégal def na ci jéego yu mag a mag lépp nag mënul sotti ci benn bés des na lan moo tax xëy na euh, jéego yu mag yi nit ñi mënuñu gis léegi. mooy Sénégal 1960 ak léegi 1960 ak 2012 li ñu ciy def ci assainissement bëriwul donc dañu nekk ci dabb lan mooy firnde loolu mooy boo jëlee quartier bu mel ni Médina bi ñu defee euh, conduite yi fa nekk defe naa tubaab yi ñoo ko defoon am na lu mat juróom-ñaar fukki at guleet ren son excellence le président Macky Sall génne ko par ñu commencé ci liggéey li koy firndewaat mooy li ñuy wax collecteur Hann Fann collecteur Hann Fann am na lu ëpp juróom benn fukki at dégg ngeen li fa xew barka démb li muy tekki mooy collecteur boobu waroon nañ ko soppi bu yàgg ba donc fi mu nekk dañuy dabe xëy na loolu moo tax nit ñi mënuñu gis lépp léegi wante même dabe bu dee am na bu ñu xoolee jéego ñu def ci assainissement Sénégal nekk royukaay defe naa wan na ne am nañu avancée significative loolu mooy ci affaire ndoxu fos yi affaire ndoxu taw nag li ci am tamit benn la euh, président Macky Sall bi mu ñëwee 2012 defe naa gis nañu ni mu meloon dëkk bi 2012 ni mu meloon mooy route nationale bi kenn mënu ko woon jël 2012 ni mu meloon mooy école bu tëjee taw am ni ñi dañu doon toog ci biir école yi lu mat ñetti weer 2012 ni mu meloon mooy foire de Dakar ñëpp gisoon nañu ni mu mel bu taw passé defe naa ni ñu fi dañu fa doon toog ay weer loolu ren kenn gisutu ko loolu lu ko waral mooy li ñuy wax plan décennal de lutte contre les inondations xaw ma ma de ci Afrique sowu jant dëkk boo xamee ne. am nga lu ñuy wax plan décennal de lutte contre les inondations mooy plan booy tëral ci fukki at ne man kat fii laa jóge fii laa bëgg a egg plan boobu nag ñetti pàcc la am benn bi mooy dañu war a koppar bi nga xam ne dañ koy dugal pour jàngat euh, euh, suuf si nu mu demee beneen bi mooy quartier yi nga xamee ne dafa jafe naka la ñuy def ba jël nit ñi toxal leen yóbbu leen ci quartier yoo xamee ne baax na beneen bi nag mooy ñun li ñuy def mooy Euh, jënd ay ouvrage tabax ay ouvrage boobu mu ngi nekk 264 mille 274 milliards de francs CFA boobu nag du ONAS rek ONAS la AGEROUTE la ADM la APIX la mais ci wàllu ONAS lañu def bu ñu toogoon fii di di lim duñ ci génn ci wàllu ONAS lan la ñu def ci wàllu ONAS moo tax ren ak taw bi di mu mën a méttee mu am juróomi nit ak benn rek yu yu yu ñàkk seen bakken du ma wax benn rek benn nit bu ñàkk bakkinam sax defe naa ëpp na dayoo warul am wante boo ko méngaloo dëkk yu mel ni Soudan am na téeméeri nit yu fa ñàkk seen bakkan nga jël dëkk bu mel ni Niger am na juróom benn am na juróom fukki nit yu fa ñàkk seen bakkan loolu mooy tontu bi nga xamee ne waroon nañ ko am plan bi moo ko indi plan bi nag fi ñu toll lan la def concretement boo jëlee Philippe Maguilène Senghor damay jël loo xamee ne sorewul parce que lu sore xëy nit ñi mën nañu fàtte loo xamee ne sorowu mooy fil Maguilène Senghor daan na taa bu bëri ren defe naa jafe-jafe amu fa nga dem HLM Rufisque daan na taa bu bëri ren moom dara amatu fa nga dem plan bi yemul Dakar nga dem Kaffrine Kaffrine indépendance ba léegi musul am système de drainage dana doog am nga dem Sédhiou loolu tamit am fa loolu li muy wane rek mooy plan bi ni ko tëralee baax mu fi mu ñu mën a yóbbu moo tax jafe-jafe yu mel ni amu ko léegi nag li ci des mooy fan la ñu jëm defe naa son excellence président Macky Sall wax na ko démb Kër Massar plan bi mooy tax affaire Kër Massar ñu faj ko plan bi aussi mooy tax ñu gën a waxtaanaat saytu ko seet naka la ñu def te gën ko tënk wante dafa am lu am ak koppar buñ ci mën ci dugal te defe naa euh, ñun askan wi changé wuñu naka la ñuy doxalinee xëy na pour ñu am résultat yi ñu bëgg ci mu gaaw dina métti changé ni ñuy doxalee mooy par exemple ba ñu dëkk ci ci ay xur changé ni ñuy mooy aussi bi li nga xamee ne mooy ouvrage d'assainissement yi ñu saytu ko bu baax bañ ko bañ ko def naka nu dul noonu def naa wax daal foofu laa koy mën a tënkee wax rek ne Sénégal dafa nekk ci voie bu xamee ni voie bu leer la te fii ak ñaari at yi di ñëw di nga xamee ne plan bi dina jeex defe naa population yi dina gis seen bopp dinañu gis ne condition de vie dina amélioré bu baax maa ngi gërëm di sant merci